dañoo tànn def ko journée porte ouverte maanaam woo ñëpp ñu ñëw yegg si ci ñun ñu wax leen nan la secteur maritime bi di doxee nan la ñuy def ku dugg fi donc ñi nga xam ne ñoom la ñu gënoon ciblé ñoo yokk tax ñu def bés bi tey moo nekkoon ñi nga xam ne ay bachelier lañu wala ay futur bachelier xam ne bu ñu amee seen bac dañuy war a def formation wut métier bi ñuy def ñun ñu wax leen tey lan la ñuy def pour dugg ci métier maritime bi wax nit ñi li ñuy liggéey ak nan lañ koy liggéeyee ba ku ci nekk tey jii boo déggee ñu ne la marine marchande nga mën a xam lan mooy marine marchande xam ne am na différence entre marine marchande ak ñi nga xam ne dañuy dem ci pêche bi ak ñi nga xam ne tamit dañoo nekk ay militaire